yëglekaay li ñu xëyee tey jilee ñu ànd ceeg Cheikh Diop Cheikh euh, dañ koy tàmbali ak l'observateur ñu door ak l'observateur moom mi xëy jëm ci lu soxol wàllu ko politique fii ci réew bu Sénégal ak itam njiit bu réew euh, boo woon moom président Macky Sall xam nga ne itam tête de liste la ci élection législative yi nga xam ne euh, moom la ñu dëkkmal dikkaat na itam ci li nga xam ne nag moom moo di ndonoli ci APR xam nga ne itam ci la jamono dafa xaw a gal góose lu ñeel itam moom njiit bu réew mi bu fekkee teewul ci li nga xam ne nag moom moo di terrain bi ci jamono yi nga xam ne ne ah, dañu amal ah, campagne bi dina doon aw échec laata waxtu wi ah, di jot lu ni mel mu ngi ci li nga xam ne nag moom moo di l'observateur dikkat na ba tey ci série de convocation yi nga xam ne nag moom la ñu gis gis nañu ci ki nga xam ne moom moo di Diégui Diop tey jilee Bougane Gueye Dany war a wuti wute woot dem wuj ji woote wi ca kanamu ko yoon ki nga xam ne itam moom moo di Cheikh Yérim Seck moom itam mi ngi ci loxo yoon ci yile jamono mu mel ni itam l'observateur dikkat na ak itam interview boo xamante xamante ni euh, seq na ko ak Ibrahima Sène ñu gën koo xam euh, ci Bira seen xam nga ne moom mooy euh, président bu CNG buy waxtaanee lu ñeel wàllu làmb ak itam leen ci loo xamante ni ñeel na aw xayma ci li mu jot a def lépp mu ngi ci l'observateur Moustapha Seck ñu gën koo xam ci Secka wallu caada la ñuy waxtaanee nee na yenn saa yi day toog du am dërëm noonu itam day rek daal di leb ngir faj li nga xam ne moom moo di ay soxlaam yeneen ñaari ponk yoo xamante ni ñëwaat na ci moom Secka ñaareel gën koo faram-fàcceel mbokku téléspectateur yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy teewlu ginnaaw l'observateur beneen ab yéenekaay yi muy enquête enquête di kat bu baax a baax euh, ci defaruk li nga xam ne nag euh, moom moo di euh, bulletin yi jëm ci élection législative yi nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal les de la démocratie la rek daal dippee lu ni mel mi ngi ci yéenekaay yu soxna naata le quotidien a moom moo di ca Dandemayo ak la ko wër li nga xam ne itam moom moo di njeexital yi dem ak dikk tagga témb na foofee lu ni mel bokk na ci li nga xam ne euh, moom le euh, quotidien dikk xëy euh, fësal sononata ñu jàll ci le soleil le soleil national di kat bu baax a baax ci lenn ci loo xamante ni itam boobaak léegi ñu ngi ci àddu jëm ci payooruk ñi nga xam ne ñoom ñoo di agent de l'état xam nga ni itam gouvernement bu Sénégal daal dinay weddi bépp tuuma woo xamante ni moom lañu ñu teg ci ak deram jëm ci ay allégation bu PIT lenn ci loo xamante ni itam ñeel na la ñu dëxëñ ci li nga xam ne moom moo di euh, communique bi nee na aw manœuvre désinformation ak itam diffusion d'information fausse loolee la rek daal ne euh, du bàyyi benn yoon mu daal di euh, jàll soxna Naata. ñoo jàll ci jëm ci contrat d'affermage Suez ak itam seen Sen'Eau un pacte financier scandale relègue daal di dippe lu mel ñeenti ponk yoo xamante ni xët wu njëkk wile daal dina ci addu daañu dikkaat benn bennal ko ci li nga xam ne nag moom moo di ñaareelu pàcc yi moom itam baat ak tontu dox digganteem ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di enquêteurs yi moom Diégui Diop waaye itam bàyyi dañ ko mu dem ñibbi euh, joxaat ko itam beneen ab convocation boo xamante ni war na ko war a mën a dem uy ji altine wi nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal ci lenn ci lu ñu xam lu ne euh, moom la ñu koy euh, tuumaal ci jamono yi lee ñu xool tribune Bougane moom itam moo war a dem wuy ji ca cybercriminalité ni ki tey ji de lay doon moom njiital gëm sa bopp naka noonu itam joxor bi na baaraam bu baax a baax Ousmane Sonko nee bu ko nam namee takkal euh, faw rek ay loxoom euh, takk rip leneen ci loo xamante ni itam euh, moom àdduna ci moom Bougane Gueye Dany nee na ragalul benn yoon képp koo xamante ni da koy xupp ci yile jamono mi ngi ci yéen kaay boobee nga xam ne moom mooy borom. Walf Quotidien convocation yi nga xam ne itam ñu ngi koy jot boobaak ak léegi jëm ci lu soxal wàllu yoon ñenn ci ñu jàpp ne ci ku jege la ñu féete te itam ñu leen di woolu booba ak léegi Bougane Gueye Dany moom moo war a toftalu ci mbir mu ni mel Cheikh Yérim Seck ay jamono yi nag. ma nga ca loxo yoon ñi seen ñaari nataal yi la yéen kaay wi euh, xëy fësal ñu àddu ci lu soxal wàllu patronat bi euh, fii ci réew bu Sénégal xam nga ne euh, CNP ak itam kenes ñoom itam daal nañuy mànkoo doon wenn say lañ ca bëgg bokk na ci xàccondoo dóorandoo soxna naata page 2 bu Walf moom moo xëy fësal lu ni mel. ñoo jàll ci ba tey ak itam maanaam waxtaan boo xamante ni daal na koy séq ak Alassane moom itam daal dinay wax ay dëggam lu soxal itam équipe nationale euh, bu euh, Sénégal gis-gisam ak itam lenn ci lu mu jàpp ne euh, bu ñu ko tegee faaw mu jëm ca yoon ca kanam daal na ci àddu mu ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page huit bu li nga xam ne moom moo di les échos les échos itam ci page cinq ñi lee nga xam ne wóolu nañu leen ci la xëy fësal seen ak nataal Diégui Diop Cheikh Yérim ak itam ki nga xam ne moom moo di Bougane Gueye Dany ñu xool beneen yëglekaay beneen yëglekaay mu di bés bi le jour di kat bu baax a baax ci lu soxol réew bu Sénégal jëm ci wàllu exportation Euh, ca réew bu euh, bi euh, lenn ci loo xamante ni itam nam na ko cee dakkal page sept moom moo rek xëy daal di xaatim lu ni mel silence jëm ci lenn ci ay responsabilité bu DPB Diba mu mel ni nag dafa esquiver lu bëri jëm ci li nga xam ne nag moom moo di débat bi xam nga ne démb moom moo nekk li nga xam ne nag moom moo di janoom bu njëkk ak way taskatu xibaar yi boobaak léegi yenn ci ay ponk yoo xamante nii dikkaat na ci bu baax a baax yenn ci ay rapport yoo xamante ni waxtaanee na ko. arrestation ak itam convocation jëm ci garde à vue loole la rek daal di xëy fësal jëm ci ñi nga xam ne nag ñoom la ñu njort ne ñoom ñooy opposant yu jomaay ak itam ki nga xam ne moom moo di Sonko yéen yi moom moo gisee nu ni mel. Vox Populi Vox Populi di kaat bu baax a baax ñooñee nga xam ne ñu ngi leen di woolu ci kanamu yoon bëri na itam ci ñoo xamante ni yéen nañu ci yàbbi ci mel ni ab dumbow la mu xamle moom moo di nag ci la jamono la ñuy wëyal bokk na ci projet wu terreur woo xamante ni nag ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax ki yor Euh, parole ko gouvernement bi tam euh, ma nga ca wet ga moom euh, Sare daal nay addu bu baax a baax convocation yi ci la ñu dikkaat boobu la yéen kaay mu mel nag source a dikkaat na ci njiit bu Africa Jom Center moom Alioune Tine waxtaanee na lu bari bokk na ci juróom benn weer yi nga xam ne nag gouvernement bi daal na ko fii def ci juróom benn weer ñu woolu ay nit yu bari jëm ci kanamu yoon jàpp na ne nag lu soxal wàllu démocratie fii ci réew bu Sénégal moom mooy nërmalu Alioune bokk na ci loo xamante ni mi ngi koy ñaalu euh, bu baax a baax yeneen i ponk yoo xamante ni euh, dikkaat na ci bëri na ñun itam daañu ci dikkaat page 4 jàpp 5 euh, bu source a moom moo ci rek daal di dikkaat soxna naata. Sud Quotidien Sud Quotidien dikkaat ba tey li nga xam ne moom moo am ci jaba yi ak itam njëkk wi nga xam ne yokk nañu ko bu baax a baax aji góor yi lu ni mel arrangé tu leen ndax itam lu ñu yóbbu ca jaba du doy benn yoon. ñu yaram. mu mel ni itam record foofee dañuy taxaw ci ki nga xam ne nag moom moo di ciment lenn ci ay jéego yoo xamante ni itam ah, mi ngi koy def page six moom moo rek daal di xëy fësalu ni mel page six itam dikkaat ci CAN deux mille vingt cinq euh, mu mel ni nag dikkaat na ak nataalu ki nga xam ne moom moo di Cheikh Tidiane Sabali encore zappé laaj la woo xamante ni ah, samp nañu ko page quatre dikkaat ba tey ci Ligue 1 coup d'envoi ah, fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre onze joueurs à suivre cette saison maanaam saison wi nga xam ne nag moom la ñu nekk fédération sénégalaise bu football ñaar fukki at yoo xamante ni euh, daal na koy servir euh, Zo Samba euh, daal nay rek dakkal bépp activité leneen ci loo xamante ni daañ ci di kaat bu baax baax sono naata mi ngi mm. ci li nga xam ne moom moo di record daañ ci taxawaat ñaareelu pàcc wi mm. waxtaanee lu soxal wàllu tàggat yaram lan lañ fas yéene